euh, je viens de proposer le meilleur des verres pour maintenir la fraîcheur dans ton bureau. Et en plus, il est excellent pour l'économie de la consommation électrique de ton climatiseur. Parfait. Cependant, celui-là, il faut s'en méfier.

xibaaru ayubés yi dañ koy dooree ak waame gi wala wal gi nga xam ne moom lañu seetlu si réewum Sénégal inondation yu métti yi plan Orsec njiitu réew mi lancé ko fukki milliards suñuy koppar mu génne ko mu ne moo jëm si jàppale ñi nga xam ne ñooy dund ak mbënd mi ñetti milliards si askan wi. ñooy def ay jéego ngir wàll gi jóge ci réewum Sénégal ñetti milliards yooyu nan lay demee ci askan wi ñoom ci boppam ñoo koy xalaat ndax askan wi ñu ne soxlawuñu ceeb soxlawuñu ak dund li ñuy soxla dëgg moo di mën a jëfandikoo seen i kër ndaxte bu ñu leen joxee ceeb wala bon ñu jox leen i matelas it du leen jariñ dara ndaxte amatuñuy kër yoo xam ne fa la ñu nekk unité trois bu Parcelles seeni jamono ji ni ki deex lay nurool askan wa ñu ci bëri génn nañ seen i kër ña sa dee sit ñu ngay dund sa biir ndox ma jamono ji ñu nekk ci jamonoy mbas coronavirus bi wàll si si ndox mu bon mi ak ndox mu bari mi nga xam ne ñu ngi koy dund ak moom si biiru si du ñàkk mu doon lu gën a yéeme lool mbas mi ñépp ragal di coronavirus. ay waaye jàmmi waaye buñ ko mënee wax it noonu Ousmane Sonko génn na ginnaaw bi nga xamante ni bi jafe-jafe gis nañu ko ci wàllum waame gi nga xam ne mu am ci réewum Sénégal. dal bu baax a baax ci kaw gouvernement bi ak njiitu réew mi président Macky Sall 750 milliards yi ñu waxoon ni moom la natt ngir xeex li nga xam ne moo di wall gi ci réewum Sénégal mel ni defuñu ci dara inondation yi gën a bëri Ousmane Sonko ni mën naa waat ni defuñu ci sax lu toll ci 50 milliards maanaam dig-digalub xaaj ba jegewu ko. si wàllum politique ba léegi Ousmane Sonko dëggate li nga xam ne moo di statut chef de l'opposition mel ni guerre daanaka mën nañ ko séntu diggante Ousmane Sonko ak ki nga xam ne moo di Idrissa Seck ñoom ñaar doxalin yu wuute ñoom ñaar gis-gis yu wuute Ousmane Sonko mel ni mu ngay gaaruwaale ne am na lu ñuy ruumandaat diggante ñoom ñooñi ak ñi nga xam ne ñoo nekk si bopp nguur gi. ak lu si man di am askan wi yëpp ñoo ko seetloondoo dafa mel ni ñi nga xam ne it ñoo nekk si langue politique bi laataa ñuy dem si askan wi rek dañoo yegg si njàqare gu kawe lool ba seen bët sax daal di tooy ñu doog leen di gis te du leen jàppale dara lu dul ay ceeb ak diwlin yoo xam ne du leen jariñ dara wala bon ay wax ju bari. jëf dëgg lay woote moom xalif bu tedd ba sëriñ Babacar Sy Mansour si li nga xam ne moo jëm si yeggale jumaa ju mag ja nekk si Tiwaawoon mu mel ni nag googule wàll jullit yëpp nag war nañ koo def seen yëf yi bopp altine ji ñu dëkkmal la ñuy wootee liggéeyub yeggale jumaa joojee bu si kenn des ginnaaw wërta suuf loolee mooy li nga xam ne moom la bépp jullit ci réew mi ak tarixa boo man di bokk war ko def sa liggéeyu bopp ngir mu doon lu gën a mucc ayib ndax jumaa ji bu yeggee rek ndamul lislaam la si Kayoor si Sénégal ak àdduna wërngal këpp actualité de la semaine dañ koy jeexal si wàllum kaaraange gi nga xamante ni bii waa police nationale def nañu xayma weeru août bi ñu génn si atum 2020 wax lu jëm si criminalité ak jëf yu ñaaw yi nga xam ne moo fi am lu tollook juróom-ñetti junni ak juróom-ñetti ak ñaar fukk ak ñaari doomi aadama amlante ak takk der yi ngir ay jëf yu wuute wàllum dorog fës si lool ay jëf yu ñaaw ak li nga xam ne moo di wàll viol loolu yëpp nag fës na ginnaaw boo xam ne police ñu ngi xam ne ne samp nañoo ñeenti commissariat yu yees sa diwaanu saalum yeneen it juróom-ñetti commissariat si banle bu Ndakaaru yooyu yëpp ñu ngi koy wàcc ngir xeex ñàkk kaaraange nga xam ne fan yi yëpp nag ñu ngi koy seetlu si réewum senegal rawatina jamono ji ñu génne si état d'urgence bi jërë ngeen jëf mbokk yi lii lañ leen indiloon si xibaaru ayubés yi dig daje ba beneen ayubés